nga xam nag wax nañu peindre nañu en noir ñooñu laa bëgg leen d'abord man mii di wax yow gëmuma 100 jours. Hmm. parce que xam nga lu jours yooyu tu as travaillé d'un autre. c'est pas avec ton argent du nit moo dem dugal la marché ñu war a togg nit ñi war nañoo lekk yow nga àggale togg ci biir àggal togg bi dem nga ba ci digg bi nga war a toppi togg bi parce que plat ba ñu tegoon xëj na du mën a daj mbooloo mi parce que am na lu bees lu xew. y a de nouvelles demandes wala am na yeneen gan yu ñëw nga war ko toppi man loolu boo ma ci bëggee laaj bilan da ngay def njuumte xam nga bilan ban la ñu war a laaj au moins un bilan annuel wala à partir de notre bilan de notre budget voté nañu budget def nañu orientation yi bu la neexee nga defal ñu benn bilan 3 mois trimestre bu la neexee ñu dawal nga xool trimestre yi est-ce que tu as les jalons mais fi ñu toll nii tout ce qu'on peut faire ce sont mais donc yow jàpp nga ne du du gàcce ñu ne leen en trois mois euh, ah gisaguñu dara loo leen def. Eh, pour yow jàpp non li ñu gis moo bëri. comme li ñu gis moo bëri. mais may mun a da ngaa xeeb euh, kii ñu wàññi euh, dund bi ñu wàññi les prix des denrées yi ñu wàññi da ko xeeb. non non may mun a da ngaa xeeb le fait que béykat yi daawuñu jot semence ñu jot ko. may mun a da ngaa xeeb engrais bi nga xam ne daawuñu ko jot ñu jot ko. te mosuñu ko jot ña yore woon ay bi seen budget bopp mosuñu ko def ñun en trois mois ñu def loolu. oui mais vous êtes aidé les cours. may mun a da ngaa man su ma jëlee o prorata. Hmm. man ñi ma remplacé li ñu def li ma def ci trois mois yi ñoom demuñu lu toll. non monsieur le nag c'est pas possible. hein c'est pas possible monsieur le yow mënoo ñu yow mettre go en œuvre ci ay élaboration nga nekk. no dama laa bëgg wax xaaral ma jox la damay jox exemple pour problème la. tu la vision déet kaay ma wax la mais mettre go en œuvre. waaw déet kaay ma wax la li tax ma ne <laughs> par exemple. mais mise moo gën a important. xaaral ma ñëw non ñun dañoo commencé ñaar yi may mën a j'étais en train la pour la nouvelle dama boole ñaari yi j'étais en de concevoir et de mettre en œuvre boutique yi ma lay wax commencé naa ko bien avant. fan nga ci implanté sans non dama la bëgg a wax ne bien avant laa la wax sans avant may nekk ministre com commencé naa ko may mun a dama la bëgg a wax ne tey tu ñu mënoon tey tey ma commencé recruter les mille cent six buñ la ko d'accord te jëlewuma fenn xaalis te ci biir ministère bi laa ko defee lu tax ñu fi nekkoon mënuñu ko. tey su ma premier ministre joxee ndigal tuba tuba ma commencé. xam nga. mais lu tax ñooñu mënuñu ko loolu da ko xeeb. non may mun a dama lay jox ay exemple rek sama agenda quotidien les nouveaux partenariat yi ma yi ma signé mais ci période 3 mois. ñaata nga ña yan partenariat nga signé. non partenariat yi bëri na mënuma wax ñaata la. Hmm. am na ñaata la en terme de volume financier. en terme non pas pas en terme de partenariat pas en terme de volume financier. mais ce sont des partenariats pour la réalisation de l'approche économique sociale solidaire bi ñu bëgg a def tey partenariat yooyu mën nga wax ne il y avait zéro partenariat au ministère tey on a une dizaine suñu ñu bi ñu ñëwee on a accéléré les choses kon dama la bëgg a wax ne ñoon li ñuy li ñuy def te loolu man jàpp naa ne man maa gën a yees ci ministre yi ah yeneen parce que ñun dañuy waxtaan suñu biir ñun ministre ministres yi tey dama lay wax beneen affaire trois mois yi li ñu def ci jubanti rek doy na bilan. jubanti la mais may mu loolu xaalis bu ma doon dem la nga tekk ci bor booy fay fanweeri at may mun ne yàq boobu arrêté ko loolu du résultat bu baax.